asalaamaaleykum leen internautes du premier site d'information au Sénégal muy leeral point net di euh, profiter wàlle au passage di leen wax bonne heureuse année leen wax yi bees yi tàkk la leen leeral di préparer d'ailleurs bii nii xam naa ci lay bokk ndax exclusivité la ki ñu fi toogal xam naa ne bu fekkee xam ngeen ko it li muy wax ci euh, média bëriwul dama koy bàyyi moom mu nuyoo wax ñu moom mooy kan salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm di ma saw tamit sama mbokk yi ak sama proche yi ak ñi nga xamante ne xam nañ ma à travers ay nit d'après scandale yi fi amoon wax yi fi jotoon am et tout ci affaire mariage yu Balla gay bi et tout alors que man j'étais même pas au Sénégal yëguma tinuma publier wu ma photo defuma dara ainsi de suite ñu may sosal di wax ay wax yoo xamante ne amul. ah bëgg nañ xam yow la kan parce que boo ñëwee rek nuyoo wax dinañu jëli mais internet yi il faut ñu xam yow yaay kan. ok au man maay gën taf ñu gën ma xam ci Moustapha man maay ex jëkkëru jabaru Balla Gaye di Leena Gaye que je salue aussi au passage di sama yaay doom di tamit jigéen bu baax. bëggoon nañ di revenir un peu wax nga sa soxna la woon kon yow ak Léna xanaa kon nekkatul après si lay doog a marié wu. sama soxna la woon kon ni ma koy waxee à chaque fois rek jigéen bu baax la yàlla moo tuddoon suñu diggante dem na ba suñu diggante man ak moom amatul am na droit am jëkkër ju ko neex que mu nekk Balla Gaye ka mu nekk kaneen ak kaneen ci bokk yam wax ji bari na wax nga ko sànq nga ñëw pour leeral ko fii ci leeral xam ni fi la lépp di leere ndax dafa am dara looy regretter ba taxoon wax ji jóg. non au fait juste que ni awma dara lu ma ciy regretter parce que kuy regretter mooy koo xamante ne da nga wax wala nga envoyé ay truc parce que juste. yaa certains sites yoo xam ne duma sax bëgg tudd seen tour di leen defal promo yu dem suñu Facebook yi di jël ay photo yoo xamante ne c'est normal parce que boobu dañu doon sëy mën a moom di ko publier en dix ans que ni man maa jël photo yi di leen ko envoyé juste pour fair le buzz déjà un man j'ai pas ce temps là alors que j'étais même pas au Sénégal est que tu vois en plus li ma ci gën a metti il se permet de diir que ni ils ont des photos en plus des vidéos censurées des trucs yoo xamante ne ça n'existe pas. bëggoon nañ xam nga ne nekkuloo woon Sénégal kon yow naka nga yëgee mariage bi. mariage bi je le suis parce que comme niñ koy waxee leena woo na ma pour yëgal ma mariage am mais vu que ni woo na ma jotuma mu woo sama yaay yëgal ko mariage bi ne ko damay marier ainsi de suite woowoon na ma man pour yëgal ma ko mais du coup jotuma. avant mariage bi di am man je suis que ni day marié te bi ma ko yëgee tamit noonu laa ci kontaanee noonu la ci sama xol seddee parce que man tey moom su marié man sama fierté la parce que ax lu mu mënti demee tamit am na loo xamante ne moo ma ko jox ci àdduna te jigéen du ma ko mas a jox parce que man sama àdduna mënatuma am doom boo xamante ne moo mag bébé Chantal kon leena aw ma fayam di ko di kontaan ci mariage bi en plus une fois di ko ñaanal sëy boobu mu nekk yàlla may ko ci doom yu barke ndax vis-à-vis ni ma gisee jëkkëram xam naa ne góor gu baax la parce que maax moom déjà am nañu jot a bind amuñu benn problème di ko ñaanal sëyam barke et tout ainsi de suite dans la vie continue. kon mën nañ jàpp yow ak Leyna seen relation nekk relation boo xam ne dafa am ay jafe-jafe. au fait pour. une confirmation man ak Léna suñu relation amul benn jafe-jafe déjà un man ak Léna y a même pas je sais pas quatre jours dégg jot naa ko téléphone jot naa jëkkëram en plus téléphone waxtaan ak ñoom ñu jàmm sante ma féliciter leen souhaiter leen heureux ménage ñaanal leen ci seen sëy kon xam nga ni sëy boobu amul benn problème man bu ma ci am. kon yaakaar lan nga yaakaar ba lu tax sortie médiatique yi am ñett ñoo war a nekk ci ginnaaw. ba au fait. loolu man je me que ni man ak beaucoup de sénégalais ñoo ci bokk yam man li ci nit ñi am laa ci am juste toog jékki-jékki gis ñu capture d'écran des trucs envoye ma ko ne ma site internet tel tel tel nee lii ak lii ak lii c'est juste ça mais je me que ni peut-être li soo mari nekk célébrité ainsi de suite looloo waral coow lu bëri et tout comme loolu am na tey euh, góor nga ah, da ngay amaat beneen njaboot da ngay am da ngeen te lu dugg ci net bi dootul dañ. lan ngay fas yéene def pour ñi nga xam ni ñoo bind loo xam ni yow loolu waxuloo ko defuloo ko yëguloo ko. ba au dëgg la li nga wax góor laa et ñaan naa yàlla amaat beneen jabar comme si tey leena ni mu marié woo tey mënoon na nekk man maay njëkk a marié wu à sa place parce bu may yàlla boole koo xamante ne ëllëg war naa mën a sëy moom damay sëy continuer sama vie comme tey jii nii moom ni mu ko defee te defe naa ni même man su ma ko njëkkoon def tamit moom réaction bi mu am ba kontaan ci lii man je xam naa ko bu baax étant di mu nekk jigéen bu baax borom xol bu rafet je sais que ni réaction boobu lay am juste man li ma metti ci internet bi mooy le fait que problème boo xamante ne au moins concerné benn jeune fille boo xam ne muy sama doom elle n'a que je sais pas cinq ans et quelques ñu koy jël di def ay photom sur YouTube di ko publier man juste loolu rek laa ci am lu ma ciy regretter mais pour le reste man je me dis ni affaire de buzz la quoi ça va passer te man je me dis que ni c'est pas la première fois que ce genre de truc m'arrive quoi. kon daal yow fas yéene woo porte plainte yi nga xam ne ñoo def loolu. bon d'ailleurs même je suis venu juste ici pour éclaircir quelques trucs aw ma temps parce que sama liggéey permettre ma ko d'ailleurs lundi incha allah damay voyager kon aw ma temps toog fi di porter plante di dem de tribunal de gauche à droite man juste li tax ma def interview bi parce que accepté wu ma def ko mais juste pour ñi nga xamante ne xamuñu ma xamuñu kan mooy gën taf toog ci site internet de suite. di commenter di dire du n'importe quoi ma éclaircir leen effectivement ce qui s'est réellement mais d'après bu doon samay proche ak ah, nit ñi nga xamante ne xam nañ ma kon lii du ma ko def parce que ñoom xam nañ man maay kan de ce fait que comme que nag mënuma dem benn kër sénégalais bu ne ma jox la loxo ne la lii nit ñi wax waxuma ko wala lii nit ñi def defuma ko donc benn moyen bii rek laa am di xalaat ni au moins ñoom bu ñu ko dégloo dinañ comprendre effectivement peut-être ñi ma jàppaloon benn n wala genre affaire yooyu dina dañ ci ñoom. comme lu leer nga bëgg ba ñëw fii ci leeral ñu nit waa leeral bëggoon nañ nga wan ñu sa certificat de divorce pour wan sénégalais yi ne yow ak leen dafa jeex te am na droit sa yëg keneen. au fait comme je te l'ai tout à l'heure man ak leena jeex na. jeex na man ak leena divorcé nañu ci ay anam yoo xamante ne moom lañu ñu war a divorcé comme ni ñu takkee woon suñu sëy mu dem di dem di dem ba suñu boroom tudd ne sëy bii nii fii la yem kon man étant personnellement nekkoon jëkkëram bu ma toogee ne man ak leena divorcé nañu ci anam yi ñu war a divorcé ba mu am droit am beneen jëkkër man je me dis ni loolu war na mën a doy sénégalais yi pas pour autant may génnee ay certificat de divorce di leen ko présenté. merci beaucoup xanaa ba la ñuy tëj rek nga def un message internet mais également à Léna. message bi may lancé Léna benn message rek la. d'ailleurs man xam naa ko bu baax parce que xam naa ni jigéen la xol bu rafet la yor te en plus mi ngi ci benn lancé lancé boo xamante ne dugg na ci showbiz bi étant di di ko ci ñaanal loolu noonu mu sumb yàlla may ko ci succès may ko ci barke ba mu mën ci jëriñ ay waajuram di ko ñaanal aussi sëy bii mu dugg ax Balla Gaye Balla Gaye mi nga xamante ne sama mbër la étant bi ba keroog muy takk ngemb di bëre ci làmb ji sama mbër lay doon te loolu du mas a changé ci àdduna est-ce que tu vois di ko ñaanal aussi sëyam bi mu barke yàlla may ko ci doom yu barke ainsi de suite di ñaan man aussi yàlla boole ma jigéen bu baax ba mu continuer sama life di ñaanal sama yaay wér gi yaram gudd fan ba lépp li ma ko yéene ci àdduna suñu borom may ma ko ma defal ko ko